waaw tay révélation yu doy war laa leen di defal euh, ci Pape Thiaw euh, tey jii bi mu gagné li nga xamante ne match bu am solo ci diganté Sénégal ak Malawi gagné avec la manière def super coaching aujourd'hui euh, Pape Thiaw montré na monde entier que né mën na li def te Sénégal war na ko mën même si que coach déganiku lañ ko def mais ci jeu bi ci euh mu jouer coaching bi mu def tay teg kenn ku ne place am euh, li moo manki won Sénégal li mo manki won Sénégal mais Samuel eto li mu dox ci pap tiew fexé ba mu to ñew ci équipe nationale Sénégal lolu nak amna naa lu leen ci war wax mais dama koy ndëgëni ngeen wax ma ci commentaire lan ngeen japp gané ne Samuel eto mom la def ci ñew pap tiew ci équipe nationale Sénégal mais luma ci man ci wax rek le Sénégal amna ay talent amna ay joueurs yépp mais li mu manqué woon mooy le coach qu'il fallait euh, ci place euh, équipe bi. Et aujourd'hui, on a vu Papio faire euh, une course exceptionnelle. Franchement, rien à dire.